mais oustaz man dama def yàlla loo xam ni saa bu ma ci génnee du gàtt jooy jooy jooy ba bëgg a lu ma koy tax a def xaw ma ko lan la daf may xool waaw lan la mu ne oustaz man góor jigéen la billaahi wallaahi ma ne subhaanallah mu sëgg te man oustaz lii xaw ma lan la oustaz lii bu dikkee ci man par force mu jóg dem mooy sama boroom doog a libre xam leen ni ibliis da koy def am na njabootam goo xam ni seen bërëb ci nit mooy awraam loolu la ñuy seen bërëb ci nit awra ku jigéen fowee awra ku góor gi bu ñu ko buggee yàq gannaawam lañuy ñuy fooye ba pare dugal ci xel mi manam dara dotu ko satisfaire ci walu jigen jigen dotu ko satisfaire il suffit que ñu nax ko ba moylo ko benn yoon góor féete ko ginnaaw soxlaatul jigéen loolu vice la bo xamanteni lu très dangereux la lay wax ni motax tax bu yeboo ñu lu ci suñu azkar goor goor lu ci di jégué suñu borom goor goor lu ci di muytu yenn jotaay yi wallahi ladi la ilaha ghayru bari na ku ko mel ñu koy yedd wallahi tayu ko bari na am na nag ñoo xamante ne moom deretu bandi moo ne ci ñoom am na kadalik même ci jigéen ñi am na ñoo xam ni bu leen vis boobu dikkalee il faut ñu njaaloo doog am jàmm waliyaadu billah kan lay dal nag mooy ki sori boroomam moo tax nan nga war a soree sa borom xale bu jigéen xale bu góor man damay tiit léeg-léeg nit da ngay toog ak moom di wax ne ko jàngal ayatul kursi <laughs> mënuma ko de billaahi wallaahi xale bu jigéen am vingt cinq ans trente ans góor góor am presque cinquante ans mokkaloo ayatul kursi laa ilaha illallah jullit mokkaloo ayatul kursi yow yaa yësti nii te billaahi noonu la bëree wallaahi ñoo xam ne da nga naan xul yàlla kaafir ñu lay xooli ba de <laughs> man mënuma ko de loolu lañ lay nga ni mais ñun ñun fan lañu toll tey fan fan lañu toll tey néanmoins yii yii nit da ko war a mokkal loolu yées yées yées xanaa boo mokkalu sa am ba suuf au moins yi ñuy ay ayatal kursi ay laqad jaakum ay amana rasul yooyu au moins war nga ko mën te na la bir ni boo ko jógalee benn guddi benn une de temps balaa pare nga mokkal ko mais seytaane moo la koy xañ moo la koy xañ application yépp mën nga ko temps yépp jox nga ko téléphone mais ayatul kursi boo ko doon jàng day mel dañu dóor ay ay ay tonn ci sa kaw loolu mbokk yi ku ya mu nekk ci yow war ngaa jooy war ngaa jooy tay benn xale bu jigéen jeeg dama koy xas di ko xas di ko xas ba mu ne oustaz insha allah balaa maa ñëw fin de naa ko tari man ko boo ñëwee boo ko tarul ma xasaat la xale jigéen ayatul ah, kursi mu mu reene ma mokkalu ma qul yaa alkaafiruun mokkalu ko ñun ñun fan lañu jëm te da ngay gis yu ñàkk fayda ñu mën koo mbokkal wal iyaazu billaah loolu nag mbokk yi bu ñu demee ba nekk jaamu alal alal moo ñuy wëlbati ndax iblis it dafa am ci njabootam ñoo xam ne alal rek la ñuy teg ci bàkkan fii lañ koy teg ci sa kaw bakkan sa bët moom rek am na ñoo xam ne alal nu ñu ko mën a amee amul problème moom daal nanu ko am rek nanu am seen mbir daal naa bokk rek mooy naa am rek nan laay amee je fu ndax danañ ma xas je m'en ndax ni ma amee ñaaw na faalewuma ko loolu mbokk ku mu nekk ci yow bu yeboo nga xam ni faju ji jot na kon lut wax ay nitam na len a innakum mo ndax yéen lut xam ngeen yonte yàlla ibrahim mako yar doomu frère am la ibrahim nek baye ci mom ne ko sama borom neena amna dëkk bu nek fe ci ginnaw falastin ñu nan ko Sadum amna na bon ñu fa nek neena yoni na la pour nga dem fa ndax man munuma daj fi yeb munuma ko dëkk yi wër yeb ibrahim di fa dem mais munul ag barakallahu fik munu munuma àgg foofu sama borom nee na yow nañ la détaché mu yónni la nga nekk yonante nga dem foofu yàlla détaché luut luut ñëw gi mu ñëw cëpp ci dëkk bi nekk fa takk fa soxna commencé gis ni dëkk bi ñoom góor ñi dañuy jëfandikoo góor ñi wulis jigéen am ci jigen ñe ñoo xamni dañoo bona bona bon ba dañuy jàppale góor ñi ci jeu macro bobu ñuy def borom bi ne leen ci kàddu lu a innakum mu ndax yéen la tatuuna rijaala da ngeen di sëye góor sahwatan saxwatan fakku ba neex min duni nisaa ba fi jigen ñi la ilaha illallah bal antum qawmun tajhalun yéen yéen bon yéen réer ñi koy promouvoir de àdduna bi ñoo ko moom de ñoo ko yilif de gis ngeen JO yi mooy événement sportif bi gën a rëy ci àdduna bi mooy événement sportif bi nga xam ni li ci dëxëñu ci ay milliards kenn xamul nu mu toll mais mooy bi gën a yis